jërëjëf jërë ngeen jëf ci seen àndina ak le buzz du web la chaîne des leaders Senbuzz TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax ci seen àndina ak suñuy programme euh, muy doon mbégte kontaante lépp lu leen soxal ci seen dundin ak seen nekkin ñu koy waxtaane mais également di am jotaay ak leader boo xam ni euh, dootuñu ko présenté docteur Abdoulaye Diallo miin ngeen ko ci rédaction Senbuzz borom cabinet médical bi di jëdëri du ñu jóg ci di am mbégte kontaante monsieur Diallo euh, di la xamal ni rédaction Senbuzz am nañu mbégte quand même merci aussi de nous avoir reçu fi nga xam ni mooy am nañu mbégte am ak yow jotaay. plaisir alors dafa mel ni xam nga yow nit yàlla nga <laughs> ku toog yow rek. Eh, eh. yàlla da koy fompal mille toogaay yu bon. da nga baax monsieur Diallo euh, donc c'est un plaisir. bokk ak yow toogaay xam naa ne walu yàlla kaamil nga. da nga baax rek. alors borom xam-xam nga borom wilaaya nga moo tax je pense que nga am njortu bu rafet bi nga xamee ni am nga ko ci ñun. alors dafa mel ni li Sénégal yëpp di dund jamono ji mooy mbégte bi nga xamee ni amoon nañ ko ci li nga xamee ni mooy quart de finale demi final ak coupe bi nga xamee ni yàlla indi na ko fi moom la gis yow jamono ji monsieur Diallo. émouvant. Hmm. émouvant. fierté. on est tous des champions. Euh, c'est un c'était une soirée inoubliable. ok. ñi ma xam xam nañu ne dama statué woon jour boobu. mane ne Seigneur je viens auprès de toi portant tous les péchés de tout le peuple sénégalais. on est venu en toi orphelin de victoire pour te solliciter aujourd'hui une grande victoire face au pharaon okay. d'Égypte d'accord man bokk man dama gëm ne football yàlla la ça n'engage que moi nag. d'accord xam naa sax dinaa ci ñëw parce que am na loo xam ne vraiment bëgg naa aussi nga gën ñu ko leeralal quand même ci gis-gis ak expérience bi nga xam ne aussi euh, jàngat nga ko ci li nga xam ne mooy football ak doxalinam euh, mais docteur ndax lecture bi nga am mooy li ñu baree bari am jàpp ni coupe bi yàlla indi ko fi dafay wane rek ni li ñu faral di wax niveau type des sénégalaises wala niveau type sénégalaise judduwaat na ci réew mi wala war na juddu ndax lecture boobu nga ci am. je crois pas. Hmm. on est tous fiers quand même d'être ou socialement pour que ça puisse faire quelque chose parce que déjà dans trois jours yi dañuy dem ou bien dans une semaine dootoo gis kenn hmm. ci moment boobu cest dire moment boobu ci semaine boobu la ñu waroon par exemple euh, def tout possible ba tourisme bi gën a dox mais ñoom dañuy dem dañuy dem liggéey quand ils partent ils partent travailler ici ils reviennent pour jouer xam naa ne même coach bi Aliou Cissé El Tactico comme le dit le président doit aller en France xam naa sûrement sa famille est là-bas parce que j'ai vu euh, Coupe d'Afrique bële passé bi ñu Algérie éliminé mmh. woon j'avais mmh. lu mmh. un beau passage de sa fille qui témoignait euh, de sa disponibilité en, envers de l'équipe mu ngi naan ndeysaan ñu ñii say doom gisatuñ la à cause de bëgg sa réew bi nga bëgg sa réew man poste boobu doom bu jigéen boobu posté ça m'a suffi largement de connaître l'homme Aliou Cissé xam nga c'était pas un très bon joueur. absolument. mais xarañam moo ko bàyyoon ci terrain bi. Mm. xarañam boobu moo tax ba coupe bi ñëw. Mm. mille quinze jël équipe bi bi mu koy jël ñëpp xam nañ ni ça n'allait pas. Mm. toog nañ fi demuñ coupe euh, coupe d'Afrique. toog nañ fi def euh, dem ak benn entraîneur boo xamante ne. Mm. Euh, def ñu bàyyi ci ci ci ci éliminatoire. Euh, premier premier kii bi quoi. Mm. seizième de finale yi match de poule deuxième match de poule mu dem bàyyi ñu bala mi Ndiaye jëlaat équipe bi. Mm. toog nañ fi ba benn entraîneur Alain Giresse dem fi saag Sénégalais yi dem na yoonam naa xamuñu suñu bopp. moom mu gëm mu mu gëmb tox lu. ba am ndam lii. boo ko xoolee xam ne kii son visage il a vieilli rien que en criant en criant. foo gis mu ngi yuuxu mu ngi galvaniser ses ses troupes. tout le mérite lui revient. d'accord sànq dégg naa ko TFM muy mm. defay mu naan moom nit ñi dañ ko bëgg a teg dara te moom du dara lépp joueur yi la. xoolal ma modestie boobu. donc gàcce ngalaama Aliou. Mhm. Euh, gàcce ngalaama joueurs ok euh, mais fii la ñu waroon profité tourisme bi dox. pour réew mi dox au lieu di di di woote manifestation yi nga xam ne certainement yow da nga gis ni aussi c'est un peu ak réew mi nga xam ne moom la ñuy ci paree pare nañ ci ah. mu ngi nii di tëgg en direct buñ ci paree pare nañ ci ah. ok le Sénégal passe à autre chose c'est-à-dire mënuñu jël Sénégal moom mënul jël benn affaire. rendre ko riche mënoon nañ ko jël léegi léegi rek ñu def comité de réflexion dañ ko waroon sax def avant coupe bi di ñëw. nga xam ne bu coupe bi ñëwee rek dañ koy appliquer ñu profiter ci mu jural ñu lu bëree bëri mais c'est trop tard. mais est-ce que diggante 72 heures 24 yooyu aussi mën nañ ci programmer certainement loo xam ne aussi. dafay déclencher mënul am parce que jours yi dañuy dellu. quand les acteurs ne la pas là munoo woon nit ñi day ñëw ci dara nag quand même ils réussi enlever le stress. Mm. ils réussi benn moment ku reetaanu ree ku géej bég bég loolu kenn amul fayam. d'accord yow da nga gis ni loolu rek la football indi wala loolu rek la joueur yi indil quand même nation bi d'une manière générale. ci sa gis-gis wala. Sénégal maintenant tout le monde connaît Sénégal à cause de 2002 la ñu ñu xam Sénégal. 2002 ñu bëri xam Sénégal ñu on était au Gabon en ce temps gis ay xale yu ndaw di football ci mbedd yi kii naan boppam El Hadj kii naan boppam Salif Diop kii naan boppam Fadiga. ok on était fiers quand Sénégal en quart de finale au Gabon bañ a nekk sénégalais jour boobu dafa naqari woon. on était fiers de notre alors que le sénégalais ne vaut rien au Gabon est-ce xam nga loolu sénégalais malien lañ lay woowe Gabon amoo fa cër doo dara. xam nga loolu de. Mhm. sañoo sax doo leer so sol costume chaque minute ñu rappeler que tu es étranger que chez toi vous mangez le riz. ñu ñoo nekk fii di rëy la miñ rek est-ce que xam nga y des étrangers qui sont la di jaay ay boutiques ils ne sont pas fiers de notre victoire. ce qui est normal aussi. parce que xëy na dëkkuñu ci dëkk bi. non noonu sax parce que ñun tamit à l'étranger man bi ñu nekkee Gabon. Mhm. bëgguñoon Gabon gagné. absolument. mais nag dañ doon jaay le malin rek bu gabon duggee dañuy ragal naan woy woy woy ñi Azingo parce que à l'époque c'était Azingo c'était pas les les panthères très bien alors monsieur Diallo xam nga ni ginnaaw bi nga xam ne coupe bi ñëw na tamit manifestation yi fa am Sénégal yëpp population bi yëpp vraiment mobilisé wu ngir ànd ak gaynde yi ngir vraiment jaaraamal leen dawla leen jukkal am na ci loo xam ne tamit ay drame yu si juddu la ay xew-xew yu ñàkk seen bakkan ci final bi comme après final bi tamit gannaaw bi nga xam ne coupe bi ñëw na ci réew mi euh, ban jàngat nga mën di daje moom foo mu am buuxante fu muy am moom dara même mag. Hmm. <laughs> loolu moom ñooy ànd. ndax réew mi bëggoon nañu football à ce point pour yow lu waral mobilisation. raw na foofu pour te dire vrai yéen Dakar ngeen gis dem leen au nord du Sénégal dem leen Fouta. peut-être fii lañu déplorer ay morts mais c'est sûr que même ak Kanel yaay des morts c'est sûr ça c'est sûr. ok euphorie fu mu am. Hmm. imaginez léegi ñëpp am Jakarta. booy dawal sa jakarta mun nga fël benn benn booy mu amee blessure ba loolu di ko bàyyi mu dee. Hmm. fii lañuy ñu déploré mais est-ce dugg nañ ci biir réew mi ba xam. d'accord euphorie la. ok ce jour la tout le monde était égal. on ne reconnaît ni le pauvre nii le riche. nii le président nii le citoyen lambda. kenn du ko reconnaître. tu imagines. xam nga ni lii football rek moo ko mën même seconde. Hmm. ngay xool benn action boo xamante ne yow ak président de la république yéen bokk toogaay bokk émotion. Hmm. loolu football rek moo ko mën. alors mu am vraiment loo xam ni bëgg naa ñu gën ko jàng ci yow wala si nga gën ñu ko mën a leeralal aussi muy li ngay faral di wax ni dafa am gis-gis boo am ci football. ba dem bay xaw a wax naan football yàlla la. ndax mën nga ñu leeralal yàlla la mais football aussi yàlla la. alo yan détail nga a indil benn bal mooy dox ci terrain bi bu bit duggoon beneen kam ñu seen beneen ballon ci euro central bi du ñu valider bit bi vrai ou faux mm-hmm. hmm? parce que Dieu seul doit su sur le terrain donc l'unicité est représentée par le ballon ok tout le monde regardait la même action la même seconde kooku yàlla bu feeñoon sax taaw ci asamaan si kenn du ko gisee noonu parce que Amérique mu ngi ci guddi ñu ñu ngi ci bëccëg ñeneen ñaa ngi ci machin kenn du ko gisee noonu Mhm. vrai ou faux. Mhm. naaj bi sax ñëpp duñ ko gisandoo même seconde. d'accord football le milliard de population mondiale yëpp di seetaandoo même seconde. même émission même seconde même yuuxu même seconde équipe di onze joueurs onze de tour yàlla huwa. huwa fii huwa fee. ça fait 22 jours 22 xoolal salaatul fatiha salaat bi ñuy àggaloo yàlla trabi nga yoo xam nga salaatul fatiha nga trabi ba àgg yàlla mm-hmm. dans la dans l'alphabet arabe y a 28 lettres ñu jël 22 lettres mm-hmm. ñu taggee ko ñu tabbee ko salaatul fatiha 22 jours ñoo nekk ci terrain bi mm-hmm. ñu nekk l'arbitre et demi joueur 22 et demi donc dans le terrain 22 ans et demi la alxuraan wàcc nga am tribune couverte tribune découverte ñaari virage donc jaa fii alif fii miim fii ay le monde c'est le rassembleur. d'accord yaa ngi wax ni sur, sur le plan spirituel quand même ci nga ci nga nekk. di jaami bi 114. ok 114 le nombre de versets coraniques. le monde entier suit la même action la même minute. Dieu bi di Jibril alif bi di Asrafil bii di Mikaël bii di Azraïl tout ça regroupé ñëpp di ko seetaan de même seconde. après on dit trois arbitres temps wilaay wilaay nubu ahdiyu azalat c'était trois arbitres léegi après xilaaf bi mu ñëwee hmm? xam nga fi may waxee mm-hmm. ñu ne quatre la mm-hmm. ñu def quatre arbitres léegi cinq arbitres xadratul xams xaaxut laaxut naa su jabrut malkut cinq arbitres bi ñu demee bay naan sept sept sept sept ñu defaat encore yeneen deux arbitres ci caméra yi muy faa ah mm-hmm. qu'est-ce qui est plus on le connaît par la marche du vécu dans la contemplation euh, dans la contemplation yàlla du ngeen dim nit rek bu de nekk septième étoile euh, du septième ciel ok septième ciel n'existe même pas septième ciel ci yow la nekk boo xalaatee yàlla ngeen dim nit na bu doon ci kaw asamaan kooku Seydina Muhammad la yàlla nee na maa tabax suuf si ak asamaan si yëpp nu mu yaatu yaatu aw ma ci place. ci xol jàmm bi ma gëm rek laa la la laa xaj. Mhm. ok donc xol bi mooy septième ciel. sa suuf mooy premier ciel moo tax ñu ne premier ciel Adam moo fa nekk parce que Adam de la terre sa kaw mooy deuxième ciel c'est ruux d'accord te Isa Isa Jésus-Christ c'est l'esprit de Dieu c'est pourquoi ñooy moo nekk deuxième ciel sa gauche troisième ciel sa droite quatrième ciel sa devant cinquième ciel sa derrière sixième ciel sa au milieu de toi mooy septième ciel foofu la yàlla di toog foofu la xol nekk. c'est clair na solo. tu as compris alors absolument léegi nag <laughs> euh. yow mu miitu dee mooy 490 xoolal c'est 70 fois 7. 7 CI 70 ci kanam 70 ci ginnaaw 76 droite 70 gauche 76 ci suuf 70 ci kaw. 70 ci digg bi 7 ça veut dire ça veut mu muy tuddoo munoo dem ba ba doo dee. c'est clair tu es encerclé par la par la mort c'est clair. Mm-hmm. maintenant par exemple tu regardes par exemple moi ma main combien de signes là. xoolal ci arab. 28 lii li 8 28 waaw lii mooy 8. Mm-hmm. mu doon 88. 88 mm-hmm. c'est quoi c'est 70 plus 18. xayu kun hmm? hmm. moo tax l'accident que j'ai fait je pouvais pas mourir quand l'accident est la bàyyi bu mu wax lu waay c'est nit day xam boppam ku xamul boppam doo xam yàlla hmm. ku xamul sa bopp doo ku xamul boppam du xam yàlla muy loo xam ne aussi le prophète Mohammed moo ko Dieu son image daf ko sànni ci nit hmm. booy ñaan yàlla yaa ngi naan nii nee nañu lii mooy allahu allahu a ngi nii allahu le donateur le wahab le donateur foofu nga koy ñaanee non c'est du 14 lay lim 14 baa ngi nii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mu ngi nii très bien allah wahab bi mu ngi nii yow sa bopp ngay ñaan dama bëgg émission bi xaw équilibré surtout moo Et Dieu est devenu est, est le plus riche du monde waaw football dafa xaram ñaata joueur ñoo tabax mosquée bu ci kenn julli. est que tax na mu dagan ñaata joueur ñoo fi dugal ay moquette ci biir jàkk yi buñ ci julli ñaata joueur fi tabax hôpital ay eh, waay bu leen dem bu leen fa bu leen fajuy foofu may la ñu ñeex. da ngay appuyer ni football bu fekkee dafa. araam tamit comme ni ñu koy faral di waxee am na avantage boo xam ne amal na ko jullit nii loolu nga bëgg a wax wala da ngay gis ni quand même même bu fekkee araam na lii avantage ma ne bu xaraamoon Arabie Saoudite dina jël drapeau la ilaha illallah Muhammad rasulullah di ko dugal ci terrain mais yàlla araamlu ko juste rek parce que Arabie Saoudite tax daf ko araamal pour jullit yëpp Arabie Saoudite def ko ça ne veut pas dire que xam nga xam nga quand même il respecte la charia ah. Arabie Saoudite amul amul amul amul amul équipe Arabie Saoudite amul équipe am na équipe wala amul équipe drapeau la ilaha illallah Muhammad rasulullah lañuy lañuy la ñuy kii foofu Mhm. waaw passante leen question yi rek. non c'est bon c'est bon vas-y vas ah, ah. hmm? ah. drapeau laa ilaaha illallaah Muhammadu du dem coupe du monde. absolument jeex na. d'accord arab yi ñoo gën a bëgg football fii. très bien. dire mhm. faut pas ñu jéem a diaboliser ba kenn du am envie sax pratiquer l'islam waay. dans cette religion y a pas de contrainte. jàng nga ko ci alxuraan. c'est laa ikraaha fi diin. en toute chose quand même voyez Dieu et puis on passe. ah mais vie personnelle aussi. ma ne monsieur Diallo ah kenn dafa xaraam. <laughs> seen doom yi di périg nañ ko nañ nañ ci wax di rasta nañ ko wax di xaw ma nu ngeen koy waxee di wone lii. jiin séeré yi. wane sa lépp nañ ci wax. d'accord nañu wax ci loolu d'abord balaa ñu wax ci football. d'accord nañu wax ci làmba ji. nga xamante ne dañuy tuur saafara di dëgg ci alxuraan ñu bàyyi nag loo xamante ne lii day rassembler le peuple réew mi. Hmm. football la ñu gëm. bu yàlla bindoon sax ma ne la ci asamaan si football dafa xaram man de dinaa seetaan football naa bëgg football maa la ko wax. ça m'engage li may wax yépp man la engagé. man sama diggante ak sama borom kenn yoru ko. Hmm. samay jëf laa ci yaakaar man kenn du yóbbu ajana dama gëm fi yàlla ne aucun naam ne supportera un autre allah taziru waziratun wizra ukhra mhm. dama gëm fi yàlla ne fa ma tanfa'um shafaatu shafiin aucun intercédeur n'intercédera pour qui que ce soit man sama jëf ñoo ma yóbbu àjjana sama diggante ak sama borom sama diggante ak la ma ne la sama diggante ak yenent bi teguma fa kenn d'accord sama diggante ak yàlla nag teg naa fa yenent bi mhm. dégg bu baax mhm. jeex na takk très bien am maa tey gëm alxuraan man sama jabar a ngi laaj ko bu match di commencé damay def li ilaafi Qurayshin ilaafi min rihlati shitaa'i wa sayfi liya'budu rabba haadha l-bayti alladhi at'amahum min juu'in wa aamanahum wa aamanahum wa aamanahum wa aamanahum wa aamanahum cent fois ma ne wax min xawf su ma tiitee ma defaat ko. gis nga bi ñuy tiré ti eh, série série tiro bi fekkee uma ko ci kaw ak kaw yéeg di lu ma mënoon jàng naa ko. très mais gis clair de lune bi doo gis kenn ci mbedd yi ma ne yàlla fi ruux yépp tey jublu ci football bi ay waay yàlla bu ñu gàcceel ay yàlla bul ñu tere reer bul ñu jooyloo yàlla ñii may nga leen sept fois yaa xayti muy laana may ñu benn yoon gis nga bi ma wàccee bi ma déggee ñëpp yu ma xam ne lépp jeex na Sénégal kii na dama doon jooy sama jabar di ma calmer dama barke yàlla j'étais ému c'est-à-dire depuis 1986 j'attendais ça d'accord dama sonn di xaar coupe bi ñun on dañuy dem ci monde bi boo waxee ñu ne noppil vous n'avez rien gagné léegi de léegi wax ci jeex na démb kujjee politique yépp a daje ah lan moo ko mën fii ci Sénégal boo leen defoon cinquante million de kaamil ngeen wàccee ko Sénégal du dajaloo noonu. très bien football rek ko man. ah très bien léegi au contraire. <laughs> dañoo waroon jël lii kay ñu matérialiser ko. d'accord ok. je j'accepte nag. ku nekk ak si gëm-gëm boo nee xaraam na yow boo nee xaram na kooku sa tàngaaj gëmal naa la ko mais man li ma gëm laa gëm da ngay xoolal man damaa gëm li ma gëm gëm li nga gëm mais bàyyi ma ak li ma gëm c'est clair idée bi leer na et pense que message bi nga jàllale aussi certainement autorité yi dinañ ci bàyyi xel am leneen loo xam ne aussi waxuma pour autorité de non <coughs> su may wax nag moom wax dëgg yàlla mm-hmm. je ne pense à personne je m'en de personne mm-hmm. je parle pour moi ça m'engage mm-hmm. man kenn lu ma dégg bu baax. Mhm. gis nga sëriñ bi ma jàngal alxuraan. Mhm. xam nga bu ñëwoon di ma seet si lan la lan la bëgg. Mhm. ma may ko te kooku mooy sama sëriñ parce moo ma jàngal. ok dégg nga déggoom. je le respecte énormément. lu tax ngay daw monsieur Diallo à chaque fois ñu ne autorité yi quand mu mel ni dafa am quand benn dérangement boo xam ne da nga koy am di yëkkati ay kàddu mais vous êtes libre quand même bu dul dara citoyen nga ci dëkk bi war nga di yëkkati sa xalaat aussi jëmale ko ci ñoom alors mais pourquoi nga am inquiétude quand pour répondre alors tu libre quand nga je sais message boo leen bëgg a jàllale aussi nga je ne parle pas pour les autorités musa ne je suis apolitique ça ne veut pas dire que doo wax doo wax sa xalaat ci réew mi comme wax loo ci autorité s'il te de ça. ok est que xam nga réew mi su ma ko bëggoon yor xam naa fi may jaar. ok <laughs> je suis citoyen de mm. premier degré. Mm-hmm. si je veux être président de la république je vais m'imposer. ok ñaanuma yàlla nekk président de la république mënuma ko sax ga. d'accord <laughs> yàlla dem mën na lu ne. waaye def ma président de la république loolu moom mënu ko. <laughs> loolu dama ko xam. très bien. xam nga mu ngi sa néeg bi di ñaan yàlla ay milliards noo noo koy amee. booy booy jël xaatim di ci dugal ay milliards ci Sénégal nga koy def Sénégal daa am ay milliards yuy ñëwee noonu. ah d'accord loo ñaan yàlla mu may la acca euh, ngir ñu bañ a dabaatal ak li nga xam ne mooy waxtu wi monsieur Diallo leneen loo xam ne nemmeeku woon nañ ko ci kan bi ñeneen ñu ñuy tuddee ay sëriñ wala ay boxaaba euh, doon yëkkati seen kàddu di def ay pronostic. ci yow dégg nga sëriñ di wax ci ci ci football. alors mais si ay sëriñ la leen di tuddee. ñooñu ay sëriñ lañu. amee ah, loolu lañ leen di tuddee. ma ne ay sëriñ mais je sais pas moi man xaw ma je moo tax ma laaj la. fu ñu toj alors. sëñ dina fen sëñ dina wàcc alxuraan mu doon ay fen. da nga jàpp ne ay fen la. est que du seen jinne yi moo du neewoon nañu Sénégal du dem fen am na ñu ko waxoon bien sûr. ñii ni fi mas a ñëw. ma ne yow mii dina wax sa bopp sëriñ man maa la wax man mii Abdoulaye Diallo loo man defal ci man xamoo dara sax bay def xamoo dara. Hmm. tous tarfate ay ni xamoo dara tojoo fen sa kër rek nga toj jeex na sauvé wu fi benn bakkan ñun dañuy sauvé bakkan médecine la ñuy def ñun hmm. man dinaa dem ci nit di naan sama cinq cent mille léegi ni ñaanal ma mel ni yaa ma gën ci ci yàlla sëriñ yi ñu bëri ci ñoom ay appartement la ñoo di ci dugalee xale yu jigéen kooku xam nga ko xam naa ko jigéen bu taaru bëgg nañ la may ñu jàmm. ñoom ñuy génn doon wax. ma ne Serigne Serigne dina taxaw sax Serigne dina gën a YouTube ku wóolu boppam. Hmm. pour nga may client il faut nga dem YouTube wala télé. doo Serigne xanaa sa course bi mënul xëcc nit ñi. d'accord mais pour yow docteur lan moo leen di poussé lan leen di euh, bu maax mi di wax ci di wax ci football. non non sëñ Mbène Sy Mansour gis nga gis nga ko muy wax ci football. di seen cër duñ ko non. duñu wax ci loolu. Mhm. amuñu jot boobu sax xamuñu sax lu tudd football am na ci monde bi. pour yow lan moo leen di poussé ñooñu boo leen expliqué luy football sax duñ pour lan moo leen di poussé quand même ñuy génn di def déclaration yi alors c'est juste si c'est juste. pour se faire voir. fii nag moom daanu nañ. làmb day jot ñu wax ñu fen maanaam bëgg ku leen yéem wala ku leen gis moo waral ñuy def yenn déclaration yooyu léegi léegi léegi moom am nañ déception totale foog naa ne ñii di ñakk jom nag mm. di leen di di leen jox seen xaalis mm. di di leen di ñaanlu si ñoom xanaa léegi yeewu ngeen nag te dama dégg benn bu xaaba duma ko tuddee sëriñ mm. ci même vidéo muy naan nañu ñaan nañu sarax ba pare mu ne du ñaan ci football xoolal ma loolu ci di ci ci contredit di génn ay vidéo di wane ay oto c'est quoi ça ñun li ñu yor si oto dañ ko mën a compter. Mm. mës mës naa la ne man mës naa la ne filmer ma sama salon bu rafet bi wala sama montre bu cher bi mm. wala filmer ma sama kër bu rafet gi wala filmer ma samay oto man sama oto yi rafet sax yóbbu naa leen Fuuta foofu laa leen sandi. d'accord mm. bii di dawal cortège am li kii kat kat la boobu. maa ngi ko sandi Fuuta. boobu la Donald Trump doon dawal. mu ngi maa ngi ko sandi Fuuta. d'accord soxlawuma ko. très bien alors mais pour yow est-ce que tamit docteur Diallo dañu war a bàyyi rek ni ñuy tuddee ay buxaaba entre guillemets aussi ñu bàyyi leen yenn déclaration yi surtout. Ah, lu lu lu sacré comme drapeau national. aussi ils hmm. moom réew neex wax lu ko neex léegi nag nit am xel. alors mais bu fekkee ni quand même lu. concerne yow mii yaa war a bàyyi di interroger a bu ñu fonto. docteur bu ñu yàq émission bi s'il vous plaît ma ne dañu dëgg laa wax du ma wax lu lay arrangé man dëgg laay wax yow yaa njëkk introduire Kounkandé yaa ko feeñal day xar géej yow mii la. je pensais que mën na ko kan. ma ne ma ne yow yow jàng nga yow nitu yàlla nga war yow nga. yaa génne bës boobu yaa ko jox bës yow mii la war a waxal ma ma ñeex. <laughs> alors euh, monsieur Diallo moom la rédaction. yow moom lu fi yàq ci réew mi 80 pour cent yow la. docteur Diallo nag yaa ngi toog ci seen bës quand même tey monsieur président de la république wala président sax ëpp na parce que amul temps boobu <laughs> ministère de la communication uh-huh. sans il faut ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen censurer kii congaan mi liberté d'expression dafa am ci dëkk bi ku soxla ah, donc nag donc nag tontu nga sa bopp jeex na takk <laughs> alors da maa bëgg a boole ak ñoom man nag lu leen ragalu sax dama leen sax faalewul ñooñu du sam samay nawle du ñu samay nawle man dunduma ci fen hmm. très bien man man li ma nekk bàlle ma ci kàddu yi c'est comme tatu béy ci biti la nekk ñëpp di ko gis. très bien man je me cache mm. jamais vous dire que je suis un ange. xam nga nee naa la fii affaire asrar laa doon def maraboutage ma bàyyi ko parce que xam naa je ne suis pas l'homme qu'il faut man damaa bëgg happy man man damaa bëgg happy. très et puis ma mënul sax nit di man fay ay millions wax dëgg yàlla wax naa waxati naa nee naa boo yoree 100000 booy fay sëriñ ay eh waay 10000 bi jënde ko nga defaree ko laax nga may ko ay miskin 10000 hmm. nga may ko sa ndey mill nga jind ko ay guro beneen 10000 nga yóbbu ko jàkk ji ça te fait 40000 ñuy ñaanal la ñaan bi day dal hmm, jarul nga yàq 100000 ci benn xuur dabb très lu ne mën ne mën nañ ko mel ni ñoom ñee yàlla nag hmm. ñu dara d'accord docteur Abdoulaye Diallo jiite cabinet médical docteur monsieur Diallo tout court duma docteur bi du man maa la ko tuddee askan wi ñoo la ko la boo xam ne dama ko fi fekk quand même mënuma ko dindi euh, monsieur nga nekk fii jiite ko am loo xam ne nag yàlla may na la ci mu nekk loo xam ne aussi euh, vraiment bari nga loo ci ñaax askan wi à ce que koy traité wala ñu koy jéem a bàyyi xel yàlla may ci cabinet médical Jadri muy ndoxum siti mm-hmm. lan nga ñu mën a indil tey vraiment euh, ci li nga xamee ni gàllankoor yi nga xam ne léeg-léeg ndoxu siti dina ko jur ci dindi nit ki rawatina aussi monsieur Diallo Góor ndoxam siti mm. tubaab xamu ko moo tax ñu faj lu baree bëree bëree bëree bëri. Ah, tubaab xamul ndoxu siti. xamul existé wul pour amul sax moo bi psoriasis lañ koy woowee. ok ci benn pexe. siti mooy indi éjaculation précoce mënuñu faj siti mënuñu faj éjaculation précoce. Mm. soo demoon tey fi ñuy jaaye seen garab yi effet retardateur ngay jël lu mel ni anesthésie. lañ ngay pomp sa sa awra pour nga mën yàgg tuuti boo ko bàyyi mu bàyyi la ñun dañ koy faj mu wér hmm. traité ko ba gaaw daanu bi dañ mais nag il faut pas oublier que yàlla moo créer noonu doomu aadama parce que il a fait ça pour la reproductivité hmm. pour ne pas dire reproduction comprends nga hmm. il faut mu gaaw léegi nag yooyu yaay xool yan garab ngay jël retardateur effet naturel nag. mu def ko ci yow. d'accord ndoxam siti mooy indi arthrose moo tax mën ñu faj arthrose. gis nga damay gis ci télé bi sax ñuy pisé naan dañuy faj arthrose dem leen man maa leen jox léegi sax secret bi ça fait maa ngi koy wax ñu dañuy déglu samay vidéo ba dama ne arthrose kenn du ko faj fajul siti ok te gis nga su ma leen waxee fi ñuy jëlee seen garab dootu leen dem ci ñoom. Hmm. je te jure. ñii di wax fii dañuy faj hépatite di laaj 200000 ñoom ñëpp xam naa fa ñuy jëlee seen garab suñu garab yi la rek mais xamuñ sax ni koy composé ak mode d'emploi bi billaahi. garab hépatite nu koy defee ci meew. nu koy defee ci ndox bu tàng. kaas ci beeg kaas. Mm. Mm. n'importe quoi n'importe quoi. Mm. ndoxam siti mooy indi xasan mooy indi heure mooy indi pied d'athlète mooy indi bët yu xasan mooy indi bët yu xonk. mooy indi polyarthrite rhumatoïde mooy indi stérilité ñàkk am doom mooy yàq maniw góor d'accord léegi boo mënul faj loolu nooy faje maniw bi yii yëpp dañ koy faj mais lépp lu ñu ci faj dañuy njëkkee cité bi mooy yàq règle jigéen dañuy gis jigéen toog 6 mois 8 mois du gis règle d'accord kon léeg-léeg ndoxu cité ak lim fréquent jamono ji ok mooy tax ëmb boo jël sax mu tuuru nga dem ci buxaa yi fenkat yu bon yi danaan rab la wala liggéey la wala dañoo sàcc sa silib dagg ko lu ne ngay dégg. Mm. c'est du n'importe quoi. Mm. yow xoolal d'abord nga dem ci yenn ñaankat yi ñu ne la sarax sarax bi dañ nga koy indi seen kër xoolal ma fen yooyu rek léegi dañuy laaj sax laadum laadum xar laadum dañ koy laaj. Mm. dañ lay laaj sax 33 mètres de bassin et puis chiffres yu bizarre la ñu xool ko ay 33 66 99 loolu nag day day fekk korité wala tabaski jege de. d'accord. Mhm. rek. ok or wala sa yére bu gën a rafet bi nga bi nga bi nga mujjee dem xew. Hmm. parce que dañ ko bëgg may seen jabar n'importe quoi. ok indil ginaar dañoo xiif rek. très bien. ginaar kay yow booy sarax du yow yaa war a defar sa sa sarax bopp. Eh, eh, eh. dañuy fen rek. Hmm. bëri wax takk rajo yi mbële mbële mbële man dama leen di sax jéppi. d'accord xamuñu dara dara dara dara dara dara. alors seen alxuraan sax sellul. xayril maxduub lañ lay wax xayril maxduub xayrul ma xay sax lañ la wax du sànne xayri xoolal mm. yaa kat fóot la ba alhamdulilah lañ la wax alhamdulilah alxam xoolal rek alhamdulilah fu mu amee seen faatiha sax sellul c'est clair mm. alors ah mm-hmm. sirata siratal mustaqima sellul siratal lazina sax al amta wala an amta munuñ sax xamuñ dara alors li nga bëgg wax foofu mooy certainement ñu bari ñu ñuy adressé ay buxaaba wala di woote ne ay faj a ngi noonu qualifié wuñ quand même pour def li nga xamee ne. xoolal xoolal yëfu hmm. ku nekk naan dina def dara tey kay naa la woon jàngoo dara xamoo dara lañ luñ fa def. alors mais ñi leen invité ñi leen di promouvoir aussi monsieur Diallo. promouvoir ci seen responsabilité bi kenn jour boobu elle a bien remis sur leur à leur place. d'accord déglu leen émission bu baax. elle les a bien recadrés ngeen nekk fii di nax nit ñi rek yëfu fen yi nangam nangam wax na ko trois fois dans l'émission. d'accord kenn kenn rek mooy kii di faj. yor garab hmm. kooku rek la nangu sax kooku joxe numéro téléphone. peut-être kooku la promouvoir mais pas ñeneen ñi. suñu xarit Cheikh ah. pas ñeneen ñi. d'accord très bien. alors euh, yàlla may la ci mbirum fàcc yow ak cabinet médical Djeddah bi nga xam ne moom nga jiite bokk na ci li ñu gën a intéressé tamit ci sa taxawaay vraiment loolu ci la bokk yaa ngi doon wax léegi ci ndoxum siti mhm. ndax pour traiter ko comme ni nga xamee ni moom nga koy traité ci góor ak si jigéen ñooyee monsieur Diallo ak it ban yoon la cabinet médical Djeddah di jaar pour saafara ko. trois semaines mais am na yoo xamante ne seen siti deux fois lañ koy faj deux fois l'ordonnance deux fois l'ordonnance ñoo xamante ne sax trois fois l'ordonnance parce que boo sax laal ndox. am na ñoo xamante ne seen yer seen loxo yi. dafa wow koŋ am na ñoo xamante ay ay góom la partout. très bien nga. Uh-huh. loolu mu nga dem jël deux ordonnances. très bien par exemple bu amee xasan nag je préfère nga faj cité bi d' abord mooy deret bi ci biir ba pare. nga faj ci kaw. très bien moo tax même ñii di dem di jël ay pommades wala ay piqûres wala ay comprimés du ñu mës a wér. loolu ci kaw la ñuy traité traité wuñu l'origine. d'accord d'accord soigne le mal à la racine. ñu xaw a xoj tuuti mais dafa am yóbbante boo xam ne la grand doy sa soppe la da lay bàyyi xel ku lay bàyyi xel. ku grand doy quand même sa soppe la vraiment. day hmm. ñu dajee nee na ma sa émission beeg sa waa ji seetaan naa ko mais ku ma neex la. Hmm. yan feebar nga xam ni nga xam moom mooy yi nga xamee ni cabinet médical Djedri du ko traité s'il vous plaît hmm, nga limul ci rek pour ñu xam. wax nga city mm-hmm. ak tout ce sa ça ça amène arthrose mm-hmm. nerf sciatique polyarthrite rhumatoïde faiblesse kii euh, euh, faiblesse sexuelle et impuissance bokkul city day joxe faiblesse ok faiblesse sexuelle lañu koy traité impuissance sexuelle éjaculation précoce ok city day joxe trompe bouchée d'accord day joxe perte blanche qui pue day joxe règle bloquée comprendre mm-hmm. day joxe ñàkk am baneex ci sëy day joxe stérilité bañ am doom des deux côtés nag jigéen ak góor hmm. yooyu yëpp dañ koy traité fii day joxe euh, pied d'athlète xasan heure yooyu yëpp dañ koy traité li ci des ci mara maladie yi hmm. moo tax may naan siti mooy bàyyi feebar yi li ci des ci feebar yëpp ci côté biir bi la biir bi mooy ndeyu feebar yi hmm. siti mooy bàyyi feebar yi peut-être beneen émission. incha allah ñu wax ci biir bi. li muy créer comme maladie. très bien euh, nu ñu koy fajee. incha allah mais siti moom. Uh-huh. lépp lu muy def ci doomu aadama dañ koy faj fii. d' accord monsieur Diallo ñu doon am mbégte doonte ni dafay xat dafay difficile vraiment ñu am accès ci yow liggéey bi permettre la ko moo taxit lu ci bari guddi gi daal ngay faral di am possibilité pour recevoir nu mais rédaction bi du jóg ci daam mbégte kontaan saa su ne ci am ak yow jotaay. plaisir di la ñaanal nga yàgg fi te wér di sàkku si yow ñaar baax baax. man même bu ma fi yàggul sama yoon newu ci. <laughs> monsieur Abdoulaye Diallo. ku <laughs> ku xam yàlla. Euh. boo dee nga xam foo jëm. Euh. soxloo ñu lay ñaanal yàgg fi. très bien boo xamee ne ci sëñ Tuubaa nga jëm. très bien xam ne ci sëñ Naam Mohamed nga jëm. Hmm. nar fa toog di ataayal. da ngay yàkkamti dem sax. cabinet médical Ndidri ki ko jiite docteur Abdoulaye Diallo ay waaye nag moom <laughs> ma vie ma mort. <laughs> jërëjëf numéro téléphone yaa ngi noonu ngeen koy bàyyi xel jamono ji redaction bi di leen jox dig daje ci lu yàggul ak beneen leader fi amaanillah